dal leen ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi dañuy dem ret foofee ca diwaanu Kédougou wax nag gendre gendarmerie nationale nit ku nga xamante ni daal daanaka ab ressortissant guinéen la ñu fekk ci moom daanaka lu toll ci euh, juróom benn fukki paquet yu nga xamante ni daal Sénébar la am moom sax daanaka ñu ngi ko daal teg loxo gannaaw ab service renseignement bu nga xamante ni daal waa gendarmerie utiliser nañ ko ngir daal di topp waa joojee mu nekkoon nag nit ku nga xamante ni daanaka mu ngi doon def business am bu baax a baax ci diwaanu Kédougou ngir daal di fay jaay loolee di Sénébar waaye yóbbu ay gox goxaat moom mi sax daanaka gannaaw ba nga xamante ni teg nañ ko loxo ak sinibar boobe daal nañ koy présenté euh, procureur près le tribunal de grande instance de Kédougou moom sax daanaka ca mujjantal bi nga xamante ni daal génn na ak procureur daat nañ koy placé euh, sous mandat de dépôt liñ koy toppee nag moom moo di jëfandikoo wàllum sinibar maanaam di ko trafiqué moom nag jamono bii dina xaare ni daal ba xam ana fan la wanante di mu ak gëtam diggante moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di attekat yi grève yi nga xamante ni ñii liggéey ci collectivité euh, territoriales yi euh, ñu ngi koy amal ba tey jii nii wala nag euh, kuréel gi nga xamante ni moom moo ŋànk SOS consommateur ñoom nag jamono bi njàkkare la ñu am ndax nee sax sax grève boobee daanaka daal di pénaliser ay xale yu bëree bëri yu nga xamante ni dañoo waroon def lii di ay examen mbaa ay concours ndax ñooñu sax daanaka ay euh, weer a ngi nii ñu ngi doon déposer seen ay kayit foofee ca mairie euh, bu Thiès ville waaye itam nag mënul tax benn yoon loole sotti ndax nag mënaguñoo am li nga xamante ni moom moo di seen ay kayit yenn saay sax ay citoyen dañuy dañuy jug euh, cinq heures du matin daal di dem foofee ca mairie ba ngir daal di inscrire ci liste ba nga xamante ni daal si yenn saay te juróom fukki nit rek la ñuy jël waaye ca mujjante ga nag loolee du mujj fenn ndax grève bu daal ba tey jii nii ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci collectivité territoriale yi loolu lañ ngànk ba tey daal ne ñoom duñu dellu ginnaaw loole sax moom moo war a itam ka nga xamante ni moom moo ngànk kuréel googee daal di euh, proposé rek benn mbir muy maanaam candidat yi nga xamante ni daal déposé wuñu seen ay pièces état civil ñu daal di leen di dàkkal seen i examen ba mois d'octobre bi ñëw maanaam ñu def li nga xamante ni moom moo di session d'octobre dañuy desandi ba tey itam ci wàllum collectivité territoriale yi dem foofee ca mairie bu Thiès Ouest waxiiroo ak ngaayoo bi nga xamante ni mu ngi wéy di am diggante ki nga xamante ni moom moo di mairie commune bi di Mamadou Djité ak itam ñi ay conseil am ndax démb nag ci samedi bi daanaka sax police lañ fa andi ngir maanaam abstention abstention mën fa am loolee nag li ko waroon moo dafa am ci conseil yi nga xamante ni daal ñoom jàpp nañ ni moom mii di maire gox boobe li muy doxalee mairie bi jaarul benn yoon yoon dem sax ba itam am na ñu nga xamante ni ñu ngi koy du baaraam moom mii di meeru gox boobee lu bal yéen ki seen alal wala nag ñoom ñu génnee saa seen ay papier jàpp ni daal jot na sëkkam kiir nga xamante ni moom moo di mu Mamadou Djité daal di euh, fësal lii di liggéeyam waaye itam wane ko en toute transparence beneen bi itam bu ci am moo di dimb daal gis nañ fa itam ay jigéen ñu nga xamante ni te bokk ci conseillers yi ñooñu itam jàppale leen dugal leen ci auto ba bala balaata nag mbiri di seddaat guy am na itam sax ay conseils yu nga xamante ni ñoom dañ leen faa dóor mu ngi daal di xam yooyu nekk nag ay mbir yu nga xamante ni xew na foofee ca commune bu Thiès Ouest li ko waral nag moo di ñeneen ci conseil daal liñ bëgg rek moom moo di moom mii di maire projet yi nga xamante ni mu ngi koy amal ci biir dëkk bi boobu ba léegi bi nga xamante ni nekk na maire ci diwaanu commune Thiès Ouest na ko fësal ngir ñu xam ana la mbir mi toll. yenn ci ay kilifa maire bi itam am bo bokk ci euh, parti démocratique ak kii Habib ñoom ñëpp dañ nekk ay jàpp nañ daal li li daal ci maire bi moom moo di maire ak ay conseillers am àndandoo xool seen intérêt li nga xamante ni daal moom moo dem ci commune bi waaye tam bañ a xool li nga xamante ni rek moom moo di seen intérêt personnel ndax jàpp nañu ko daal xeex bi yëpp li ko war a moo di ku ci nekk da ngay xëcc jëmale. sowet te loolu nag baaxul benn yoon ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo foofee ci commune bu Thiès Ouest ci mënti am daal jamono bii daal diggante ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Guité ak ay conseil am daal sagar mu ngi ciy xeeñ bu ñu moytuwul nag dina gën a yéeme dañuy wax itam ba ci itam beneen mbir bu nga xamante ni nemmee nañ ko foofee ci diwaanu Diourbel mu di opération bi nga xamante ni daal ñii di waa commissariat def nañ ko ngir nag jàpp yenn ci ay machines yu nga xamante ni daal xale yi dañ ci carte xaalis loole sax moom moo waral ñu daal teg loxo kenn koo xamante ni daal moom ab gérant baar la waaye tam benn caméraman ñoom nag sax daanaka joué jeu yooyee ñu ne mekkun daal ci ki diwaanu Jurbel dafa commencé yàq li nga xamante ni moom moo di ñàngu xale yi ndax yenn saa yi xale yi bu ñu dugalee cent mën nañ koy dem sax ba nga ci lépp eh, juróom benn junni ci benn bis mu nekk nag mbir bu nga xamante ni nemmeeku nañ daal dem na ba commencé woon yàq lii di jàng xale yi ndax xale yu bëree bëri ci ñoom dañuy daal di daw jàng duñu jàngi waral nag ñoom ñaari nit ñooñee biñ leen jàppee itam euh, tax na sax commissariat ci liggéey bi nga xam ne def na ko ci diwaanu Jurbel teg lu ëpp teg teg loxo lu ëpp fukki machine ak ñeent waaye itam sax daal di saisir yeneen mbir yu nga xamante ni daal dafay ëllëbal xelu xale yi ci wàllu njàng ñoom ñooñee sax daanaka biñ leen yóbbee euh, foofee ca kanamu yoon li leen toppee rek moom moo di détention et exploitation de machine à sous et organisation des jeux non autorisés loolee sax daanaka article 388 du code pénal moom moo ko daal di tere ñoom ñett ñëpp nag nga xam te daanaka teg nañ leen loxo jamono bii dañ leen placé sous mandat de dépôt ñoom nag dinañ leen jugé semaine bii di ñëw foofee ci diwaanu Diourbel ñu daal di wax itam ba tey rek ci itam beneen liggéey bu nga xamante ni gendarmerie def na ko ngir daal di teg loxo daal foofee ci diwaanu gu ab site boo nga xamante ni daal ña fa nekkoon ay clandestin yu nga xamante ni dañ doon gas li nga xamante ni moom moo di wàllum miin ñaar ci ñoom nag kenn ki dëkk ci diwaanu Mali kenn ki tam dëkk ci diwaanu Guinée ñoom ñoo lëkkaloon ak ay sénégalais itam andi li nga xamante ni moom moo di seen ay jumtukaay lu mel ni ay machines yu nga xamante ni moom moo doon gas suuf si waaye itam ay groupe électrogène yu nga xamante ni daal dañ ki doon renforcer di ñoom sax daanaka bu leen tegee loxo ñoom ñoo daal di lëkkaloo ak gendarmerie mi leen teg loxo daal ngir ñu feeñal yeneen sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo leen doon dimbali ci liggéey boobee ca mu ngi tëgg rek ñoom gannaaw bi nga xamante ni enquête bi buur na ñoom itam procureur daal di leen placé sous mandat de dépôt moom njiitu réew mi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi jamono bi foofee ca diwaanu Guinée moom sax daanaka ki nga xamante ni moom moo di ma Mamadou Doumbouya moom moo ko daal di dalal foofu waaye itam ñoom ñaari njiitu réew yi sax daal nañuy waxtaan lu mel ni daal intérêt commun yi nga xamante ni daal moom moo am diggante Sénégal ak Guinée waaye tam sax itam daanaka mbirum sous région bi yooyu yëpp daal nekk nag mbir yi nga xamante ni ñoom ñaari kilifa yooyee waxtaan nañ ko waaye itam lu mel ni sax doomu Guinée yu nga xamante ni ñoo ngi ci diwaanu Sénégal waaye itam sax waxtaan nañ lu lu ci mel ni itam wàllum économie commerciale itam waaye itam projet boobee nga xamante ni moom moo di OMVS yëpp nag nekk ay mbir yu nga xamante ni mën na amoon njëriñ Sénégal ak itam dëkk boobee di Guinée ñu bëri sax na doon ñaawlu kàddu yi nga xamante ni fan yële gisoon nañ ko ci ab Sénégal yi mu def ko yëkkati woon ci ay jëmale ko ci Guinée yi nga xamante ni ñu ngi fees dellu biir Sénégal loole sax ñu jàpp ni daal mbir la mu nga xamante ni mbir la mu nit ñi war a rafetlu ndax nag loolee dafay daal di suqali li nga xamante ni moom moo di koom ci diggante ñaari dëkk yooyee moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag foofee ci diwaanu Guinée Sarr doomu Sénégal ya fa nekk itam daal di koy teew tatagal ko waaye itam wax ko li nga xamante ni moom moo di ñoom itam seen i doléance ci diwaanu Linguère moom foofee auto inspection de l' éducation et de la formation IEF maanaam de Linguère bi nga xam te ne daal dañ ko sàccoon diggante dimanche 19 jëm lundi 20 loole nag daal nañ koy retrouver loole sax ñu ngi ko daal di fekk foofee ca commune euh, bu Ranérou lépp nag sax daanaka mu ngi am gannaaw appel bu nga xamante ni daal daanaka jot nañ ko ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi ñu koy dem jëli oto boobu nag ay nit yu nga xamante ci yóbbu ko fu kenn xamul waaye nag jamono bi oto yo oto boobee yoon daan na koy jëlaat jibbal ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa IEF waaye jamono bii nag ñuy birat li nga xamante ni moom moo di seen blanquette ngir xool ana ñoo defoon jëf ñaaw boobee dañuy wax itam ci liir bu nga xamante ni daanaka góor la moom nag dañ ko daal di for moom sax ab xale bu jigéen daal moom moo ko daal di for foofee ca quartier pont nekk foofee diwaanu Tambacounda moom sax daanaka bi nga ko gisee nekkoon na mbir mu nga xamante ni mbir mu yéeme la ndax askan bi yëpp ñoom ñoom mabbeeku daal di ñëw ngir dañ kumpa xool ana lan moo xew dëgg-dëgg loolee sax bi ko maanaam femme boobu daal di foree ki la woowee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sapeur pompier ànd kook ak commissariat ca mujjante ga nag lañ jël xale bi daal di ko yóbbu ca bërëb yu nga xamante ni daal dinañ mën a topp lii di wér-gu-yaramam waaye nag jamono bii daal nañuy ibbi li nga xamante ni moom moo di ab lanket ngir xool ana kan moo jur dëgg-dëgg xale bi waaye itam anakan moo ko dal di sànni foofu démb itam ci sandi ba mu nekkoon sandi bu triste ca diwaanu Thiès rawatina euh, euh, ña nga xamante ni ñoom ñoo bokk ak jàngalekat bii di Alain Kali démb nag moo nekkoon lii di levée di corps bi foofee ci hôpital régional bu Thiès mu nekk nag mbir bu nga xamante ni ay jegeñaale yëpp ñoo nañ fa waaye itam leen rek moo di seen kàddu moo di daal dañuy ñaan det Sénégal dimbali leen ngir daal ñu mën a identifier ña nga xamante ni wala ka nga xamante ni moo def jëf ju ñaaw joojee yaayam nag jàpp ni daal moom rek moo ñàkk ndax doomam joogee nekkoon na ku nga xamante ni daf ko jege loolu kon nag tey jii bu ñu faatee doomam ci mbir mu ko bette daal li mu bëgg rek moom moo di nguuru Sénégal dimbali leen ba ñu mën jàpp ña nga xamante ni ñoom ñoo ko def keneen itam ki ko teewee di Sada Ciss moom itam nekkoon euh, fii maanaam kilifa ca ca nguur gu weesu woon moom mi nga xamante ne moom moo di Sada Ciss daal jàpp ni lii nii jëf ju ñaaw daal leen rek moom moo war jamono bi nguuru Sénégal rawatina kilifa yi nga xamante ñoom ñoo bokk ci zone nord bi moo di gën a renforcer li nga xamante ni moom moo di sécurité bi moom Sadio Cissé sax jàpp ni loolee dugguleet ndax nag fa ñu la ñu weesu rek li ni mel amoon na fi waaye ñooñee sax ñi ko defoon teg nañ leen loxo moom nag mu jàpp ni rek Sénégal am na sécurité bu mat sëkk waaye tam am na justice kon nag donc ña nga xamante ni ñoom ñoo ko yàlla def balaa yéex dinañ ko jàpp mu nekk nag bis bu nga xamante ni kenn dootu ko fàtte rawatina ña nga xamante ni daal ñoom ñoo dëkk foofee ci diwaanu Joseph ñëwoon eh, di fekkee li nga xamante ni moom moo di levée du corps professeur boobee di anekat yi daal di ñàkk ba kanam gannaaw nag ba nga xamante ni jóge woon na jàngale ji di dem këram foofee lañ ko daal di faat ci diwaanu kër Modou Ndiaye moom sax mu ngi doon ñibbi këram boobee nekk ci diwaanu Guessaab moom mii di anekat yi nag ñoor ko jibal boroomam foofee ci diwaanu Ziguinchor gannaaw nag cérémonie bi nga xamante ni amaloon nañ ko fii ci diwaanu Kees kaay mbokk yi li ma ko doon fas tey ci xibaar yi di leen jox di dëgg si waa jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi